mu mel ni xayri da nga annoncé que am na vidéo boo xamante ne bëgg nga ko wane bu ko defee rek nga daal di koy commenté bu bu jàllee. waaw waaw waaw noonu lay demee parce que xam nga dañu seetlu euh, viol yi ni muy amee ci biir kër yi ba pare tamit toujours dañuy wax ni sutura sutura te sutura boobu nga xam ne toujours moom la ñuy moom la ñuy bëgg ci biir kër yi mi ngi tas kër yi mi ngi yàq kër gi. parce que da gis koo xamante ni dafay def. lu mel noonu ñu ni nañ ko suturaal bàyyi ko mu jàll donc ba tax na euh, à chaque fois tamit euh, yu mel noonu dafay indi ay euh, ay jeexantal ci xale bi nga xamante ni moom lañ ko def. waaw ci ci ci ci côté dundam ci côté tamit vraiment bu fekkente ni day jàng wala yu demee noonu yu ci bëree bëri dañuy gis ni loolu dafay répercuté bu baax a baax ci dundam. waaw muy lu metti daal mu nekk loo xamante ni vraiment dafa dafa metti parents dañu gëmul euh, ñu ci bari daal dañ naan waaw suturaal du ñu dem tribunal wala duñu dem euh, gendarmerie wala jaru ko jaru ko te fekk daf ko jar mhm. parce que xam nga yu mel noonu noonu pour nga di ko annoncé dafa baax mhm. parce que man damay wax ni bu fekkente ni dañ ko def parce que li ñuy wax viol dafa xaw a doy mais bi ci gën a bon mooy xale bu ndaw xale boo xamante ne juddoogul peut être koo xamante ne trois ans quatre ans la am mhm. nga def ko lu mel noonu yàqal ko addinaam donc au lieu que ñu jël kooku yóbbu ko si yoon wala ñu dañ naan noonu nañ ko suturaal mm-hmm. parce que xale bi li des ci dundam nañ ko sauver wala xëy na peut-être waa kër gi nañ ko nëbb wala xëy na peut-être bis bu màggetee ba war a am jëkkër cas boobu mën naa mën naa di kat ci dundam ba tax na ñuy def yoo xamante ni vraiment dañ naan sutura mais man jàpp man loolu sutura la mhm. man li ma jàpp mooy dama naan jaam ci biir kër la rek boo ko dàqee bu génnee di dugg ci beneen kër te bu musiba bi mu def sa kër bu duggee ci beneen kër mën naa def lu raw loolu mhm. Mhm. jàpp ne que amatul am mu nekk loo xamante ne daal boo ko dundul mënoo ko xam tey nga indil ñu preuve ñu ñu mën a dem daal di koy seetaan bu ko defee ñu dellu si waat ñu dellu si waat waaw waaw loolu dina dina ma neex trop d'accord euh, en fait tey dañ doon waxtaan ci affaire bu wax viol nga xam dañ koy gis ci dëkk bi Mm-hmm. yow nga ni sa rakk dañ ko mos a nga mos a mel noonu ñu bëgg rek nga ñëwal ni si kaa bi. waaw dañ ko mos sama benn rakk te parce que dafa amoon benn surga boo xamante ne sama bi léegi saa yaay su daan démarché moom yi dara ba benn jour mu daal di sama rakk bi xool kanamam bi ba mu xoolee kanamam bi après mu daal di ñun de sama doom bi ko léegi après sama papa daal di mu ko lu xew ko sama doom bi nañ ko mu a mu ko xanaa ki mu ko doon tiiñ léegi après ki mu ko doon tiiñ ki daal di dégg wax yi rek daal di génn kër yi après mu daal di daw dem yoonam ba mu dawee dem yoonam sama papa ne nañ ko sàngu sutura nañ ko bañ wax daal ak sama ñoom tante ak sama ñoom mag ñoom ñëpp nee nañ sàngu sutura bañ ko wax dara ndax parce que ci famille bi la bokk. léegi man su ma sañoon sangu sutura boobu ñu bañ ko sangu sutura moo may gënal la parce que tey jii tamit na ko dee def keneen kenn xamul même bu fekkoon sax dañ koy téye sax ay benn at waa ñaari at moo gënoon la tamit dëkk bi dafa yaaku tey jii yàq na su ko xale bi yàq na aminaam ndax mun des fois sax di waxtaan moom ni waxtaan bi mujjee dina parce que damay jooy te tey jii dama doon ñaan yàlla suñu borom yàlla de daal ndax tey jii ni mu ko def day law mun na dem bay sa kër ko digg wala ay doomam wala ay ñeneen ay ñeneen ndax tey jii mun na law mu ne xool ko yéen dañ ko violé kon léegi bañoon mu siiw bëggoon ko suturaal mm-hmm. moo tax defuñu gaañ bi dara mais malgré tout teewul feeñ na waaw teewul feeñ na parce que mun naa siiw na ba pare ndax parce que fu mu romb bët boobu lañ koy xoolee fu mu dem tamit bët boobu lañ koy xoolee dem na ba fu mu génn saa lay doon problème ndax xale bi màgg na fu mu room loolu lañ koy wax wala tamit fu mu xuloo loolu la koy xasee. parce que kër gi kër famille la kër gu mag la. sama wujju yaay sax loolu lañ koy xasee des fois day jotee ñoom mais day ñaan ko yow ku nekk moo la gën ndax tey jii dénkaane nga soom ba ñu violé ko bu ko defee sama yaay déggee loolu day dugg ci daari jooy ba xolam sedd man maa mën a bësal xolam. ma toog waxtaan ak moom bu xolam sedd après mu jug dem mais teewul man su may dem dana sama rakk di ànd ak moom pour daal mu gën fiir gën a tijjiiku def lool ci xeeram. Euh, mais affaire bi def ko benn traumatisme yàqul jàngam wala affaire yooyu amul benn cas boo xamante ne ngeen peut-être viol bi moom moo ko def. waa gaa yàqoon na jàngam ndax parce que su day soox du mën a dox du mën a def daa ndax parce que day yem ba mu. as bi tiim kayam rongoñam ndaxaskaram yi day ko xel di dem ci yoon mujj man maa koy xëcc di waxtaan ak moom di defal xelam ba mu delloo si waa daal mais yàq na jàngam daal moom bari ay conséquence également. Mhm. waaw waaw comme niñ ko déggee ci reportage bi rek mu nekk cas boo xam ne seet ñi ngi amee fee ci Parcelles mhm. nga dégg ki nga xam ne moo témoin loolu nga xam ne rakkam lañ ko def mu nekk kër gu mag euh, li ñuy wax ci kër yu mag yi rek euh, toujours yu mel nii cas yu mel nii dafay am mais man damay wax ni toujours rek euh, confiance bi nga xam ne moom la parents yi am di dénkaani seen doom yi toujours loolu dañ ciy war toujours ñu ci bàyyi xel comme lu demee nii dégg nga li mu wax ci cas bi xale bi ñu violé aussi dem na ba viol bi topp na ko ba jox na ko traumatisme ba nga xam ne day toog classe ba ci àgg sax muy jooy parce que dafa am yoo xam ne même buñ ko nëbbee dès le début après bon avec le temps dafay feeñ parce que olof Njaay day wax ni nopp moo mag borom da am loo xamee set nii surtout ci kër gu mag da werante lu ndaw rek ñu wax la ko wala nga ànd ak sa morom xaw a guddee ñëw ñu wax la ko te dafay mel ni moment boobu ñu la koy waxee nag waxoon la ko dès le da doon gën a neex mm-hmm. daf doon gën a neex parce que bu fekkonte ne xamoon na ko yaayam peut-être même bu nekkente ne xale la sax mu dem ba benn âge bi am na loo xam danga kaa war a leeral parce que nuñ lay traité ci mbedd bi te yow doo ci xam dara mm-hmm. euh, dafay fekk ni moment ba nga koy xam nag bay fekk boo moytul dina fekk mu nekk lu trop ba nga xam ni yow mun na la indil ay euh, ay conséquences yoo xamante ni vraiment mun na feeñ trop trop trop trop ci sa dund mm-hmm. parce que xam nga dafa metti que ñu toog benn un bonjour rek nga wax ak sa morom wala nga génn ci koñ bi wax benn wax bu ndaw rek ñu occasionné waale ci ni la waaw yow mi nga xam ne yàqu nga wala xam ne metti mel la yow wala nga ni diw bu ma toppal kii nga xam ne moom daanaka amatul lu muy sàmm parce que moom yàqu na ba mu nekkee xale nangam nangam loolu yëpp dafa nekk ay cas yoo xam ne seen dafa grave te fi muy nekkee mooy ci cas viol yi nga xam ne dañ koy seetlu donc mais man ci côté boobu li gën a wax muy dafa am ñoo xamante ni man xaw ma dañu tayal xaw ma dañu dañu dañu parce que n'importe qui da gis ko koo bëggoo dénk sa doom te àddina bi dafa yàqu man damay wax même oto boo ci duggee sax waroo di jël sa doom di ko jox n'importe qui naan ko téel ma ko parce que dëkk bi moo demee noonu mhm. te am na ñoo xamante ni dañoo feebar mhm. parce que man yenn yi du ma wax ni bëgg jigéen la mais feebar laa ko mën a teg mhm. parce que am na ñoo xamante ni xale ndaw yi am 3 ans loolu la leen yàlla di ay bébé am na benn cas boo xamante ni grand yof gi la woon voilà euh, benn xam nga pël Fouta boo gisee xale bi mu doon bëgg a violer da ngay waaru donc mu nekk ay cas yoo xam ne toujours toujours toujours da nga gis gën a bari mooy nëbb bi nga xam ne moom lañ koy nëbb sutura bi nga xam ne moom la ñuy wax ni moom la ñuy nëpp nëppal bi lu ci gën a bari mooy tax cas yu mel noonu dafay day day gën di développer parce que ñi nga xam ne ñoo koy def duñ leen jàpp yóbbu leen police wala yóbbu leen tribunal wala ñu siiwal leen ba koñ bi xam ko parce que xam nga lu demee ni kër gu mag foo xamee ne ni ñeenti jeeg a nga fa wala ñetti jeeg cas bu mel noonu bu fa amoon tey waa ji mën nañ koo siiwtaanee yëgal yëgal ko ñi ko war a yëg ñëpp sax euh, génne ko fu mel ni télévision wala dara ba ku ko gis di ko xàmmee wala moom ci boppam cas boobu dina ko def après dina ci tiré benn leçon de morale boo xam ne boo ëllëgee dootu ko doole mhm. mais dafay am yoo xamante ne dafay yomb trop nga violé xale yàq ko koo xam ne dañoo am ci yow confiance yàgg la ko dénk à chaque fois bu yaayam demee nga sëgg ci moom mhm. di def li ngay def ci moom ba un bon jour rek ñu seetlu ko vraiment mhm. nga taxaw ni da ngay da ngay wu da ngay faj nekk jeeg ñun la noppil ba sa baat xaj na ci mhm. noppil parce que waaw man kenn du yàq sama doom kenn du siiwal sama doom parce que lii nga bëgg a siiwal xëy na am na ñeneen ñu dundukaay yu gën a metti te te te ñu ko ko te ñu ngi euh, mhm. bi moo warul mën a nekk xat yi dañ koo war di génnee di ko waxtaane di siiwal ñu koy def wala ñu yóbbu leen fi nga xam ne seeni fala ma xam ne doone benn ñu xool li nga xam ne moo war a dal ci seen kaw muy ay daan ñu def leen ko ba ñoom aussi euh, ñu xam seen bopp waaw mais lii dafa metti xam nga jur sa doom vraiment xala ko xale yi ci la ñuy doxee di nekk lu nekk ci leen ñuy doxee di nekk ci bedd bi di taxawaalu am ñoo xam ne dañuy xam ni dem ba benn instant ñoo xam ne ñoom peut-être amatuñu virginité donc lu ñuy sàmmati seen bopp xam nga dañuy mel ni ñu démissionné ci àddina affaire boobu daf leen di permettre tamit ñu def lu leen neex. di di di ànd ak ñu leen neex xam nga. te vraiment cas viol daal nekk na kaabu kaabu cas bu doy euh, ñu ci bari tey boo leen laajee yenn genre dund yi ñuy dund mu nekk ay dund yu metti soit ñu bàyyi li nga xam ne mooy seen ay valeur wala li nga xam ne peut-être euh, ñun mooy suñu ay affaire ñu nekk ci yeneen. koo ci laaj en général ñu demee noonu lay nekk. muy ay cas viol dama ko dund am na ñoo xam ne dañuy dem ba sax euh, bàyyi li nga xam ne moom la ñu nekk muy jigéen war a sëy nga dégg leen ci ay yeneen cas sax ñu naa ñii ay góor jigéen ay kii lañ ay jimin lañ ay ñeneen lañ parce que dañuy suur góor parce que lan métit bi nga xam ni moom lañ sibir ci viol boobu noonu am na ci ñeneen ñoo xam ne ni dañuy dem ba conséquence viol yi li nga xam ne moom la leen di jural mooy di nga dem ba da ngay nekk sa jëkkër sax mais doo am envie toujours di nekka ak moom boo ko gisee dafay mel ni dangay am looy ragal doo nekk à loolu dafa bari loo xamante ni conséquence wu viol dafa bari trop trop trop trop ci société bi te mhm. nit ñi daal vraiment man nëbb gi ñu koy nëbb jaaxal na ma pourquoi pas mënuñu di ko wane di ko wax ba nit ñi vraiment di am luñ ciy jàngate ba ñooñu di ko def vraiment ñu xam seen bopp baa ñu xam lañ lañ war a tegu bokk ba mën a am éducation boo xam ne bu leen arrivé te wala ñu dikka leen dañu xam ne lañ war a def et nëbb bi même est-ce que mënul yàq relation entre doom bi ak parent bi parce que bu bu sa doom gisee yow mi waajur bi nga waroon ko protéger xëy na foofu mënoo ci woon dara ba mm. viol am mm. mais nga gis ko au lieu mu venger la dem euh, porter plainte wala mu jëm ko lijjanti daf koy nëpp nëppal pour nit ci bañ ko xam mm. est-ce que mënul indi haine ci euh, jóge ci doom bi euh, dem ci parent bi waaw bien sûr parce que xam nga ku am sa doom dina am benn bonjour a waxtaan ak moom xëy na peut-être génne wala yu demee noonu mais da gis ay xale yu bari foofu dañ fi jël en dañ fi jëlal en seen parents yi que na nga téye sa bopp parce que nangam nang foofu xale bi mën na révolté wu parce que boobu am na lu ko naqari mhm. lu may téye téye sama bopp wala loo may toogloo man comme li ma war na téye ñàkk naa ko ba pare xam nga loolu dafay indi ay genre discussion te loolu day indi en dina indi en ci diggante yaay ak doom parce que man bu fekkee damaa war a juddu sàmm sama bopp donc man bi ma nekkee xale li ma waroon a xàmmee ko sàmm ko fekk naa ñu jël ko kon man du sama faute. Mhm. kon loolu mën nañoo wax ni euh, ci parent bi la. waaw te loolu mën naa indi vraiment ñagas-ñagas ci diggante nit ak waajuram donte ni sax du yoon.